mais da ngay ñëw kër ga ñu yaatal. mais lan pourquoi nga jàppale Ama moo tax nga jàppale Ama. sama ñaari téléphone ñëpp lañ laa xamee si Modou nga ñëw jàppale Ama loolu mooy la mu la. mais mais Ama dañoo bokk Serigne Saliou rek sama. mais lan moo tax loolu tamit. ah mais. ah, ah dañuy tere ko far fenn. mais yow yow ñëpp xam nañ ne match derby Ama Modou Lo nga bàyyi nga jékki-jékki dem si dem si Ama. Ama ku muy déggoo ma. ñe ñeewantal bi waa parcelle am euh, euh, parce que dafa doon nit koo xam dafa doon nit ku baax ama ñun dañoo bëreeg moom bu pare door a xam kan mooy Ama Baldé. Mm-hmm. déggu leen ma rek bi mu la bëreeg Modou bu pare la ñuy door a xam kan mooy Amadou Baldé. ci xol bu rafet ci doomu aadama du jàpp dara fonk doomu aadama. ñu jàppale. ah si euh, si ak ak Modou Lo baal ma ñu yegg rek. ah soreetu. ah baal ma ñu yegg incha allah yow sama waay nga baal ma ñëw kër ga ñu yaatal incha allah. Ah, ah, <laughs> mais saa Touba gis nañ ah, Ada Fass bi mu bi mu paree rek si yow la atta si yow la ñëw lan la lan lan ma fa xew. Ada sama rakk la. sama jarbaar la sama lépp. sama dañu bokk Serigne Saliou. ñëpp gis nañ bëri que Demba Ndiaye daa bàyyi dem yëpp ñëw ba fekk sama Touba. ñoo ànd dem ci suñu wasila muy Serigne Saliou siyaare ji ko dem ñu tëjjil ñu biir barabu Serigne ñëw sama kër yendu fa taal otoom door a ñibbi mais loolu rek xanaa teewul nga loolu rek teewul nga jàppale ko loolu rek loolu nga waaw mënu ma ko woon a ñàkk bañ a jàppale parce que sama lépp la nit bu la joxee boppam rek deselatu la dara. waaw sant nañu mais guy gi nag ma teg woon na gi sa xarit. Youssou. waaw. amaa ba pare ci lamb moom ko yem. Youssou. démb yaa ngi taxaw lan la wax. maa moom ñoo njëkkandoo ci de ba trois heures du matin ci stade. aada ma ne leen Luis tey sos. waaw da koy mu daan. wax na ma ko fii ma ne Gris bu digalee ko mu ma. ñu ma Arafas ma mais ndam mu ngi ci loxo Arafas. mbay lu tax lu tax ko dem wax ko. mbay waaw ñun ay pël firnde la ñun bari nañ sant. Mhm. ñun suñu maam dafa def ci lamb lu ne ak leneen. ama mu pare wér péng ci lamb. góor yabu ko. dafa am nu mu demee rek. mi ngi ne mi ngi ne. barke Seydina Muhammad. su daanee doo jubile.